nee na mu xamal leen ne leen bëgg na yéen ñi nga xam ne yéen a nekk ci liggéey bii ngeen gën a góor góorluwaat gën a fabuwaat gën a laxasaaywaat te xam nga am ngeen sasu rëy mooy lii ñu leen dénk te ki ne ci bopp ba di sëriñ Abdou Ahad Ka moom ñi nga xam ne yàlla def na mu newoon fi te li ko fi tegoo nit ñëpp xam nañ ko bi yàlla def tànnee fi jub siwaat itam sëriñ Sidi moom dafa waxoon ne day diglu ndigalul Cheikh Mouhamadou Mountakha ndax amatu bëgg amutu bañ amul lu muy ñoddi amul lu muy jañ lu ci sëriñ bi santaane daal ñu def ko bu nee nañ ko wéyal ñu wéyal ko bu nee nañ tànn keneen ñu tànn keneen leneen lu mu ko waxee nam ko ko waxee noonu la koy wéyale ba yàlla def ba mu demee ba jege sëriñ bi yónni doomam sëriñ Moussa Mbacke mu Cheikh Mouhamadou Moustapha Bachir yónni ko ci sëriñ Sidi mu fekk ko ca Daaru Salaam bukki barka nga jottali ko li ko sëriñ bi yónni ci moom man boo fekk ne néewuma fi sax. nga ñaanal ñu yéene bi sëriñ bi am ci ñun ak yaakaar gi mu am ci ñun ba dénk ñu liggéey bii maag téeméeri nit yii mu ma ko booleet te lim leen léegi nga ñaanal ñu ñoo fas yéene ko am ci ngërëmal sëriñ Touba ndax loo rek lañ ci wut buñ ko ci amul rek kasaara lay doon ci ñun. ndax li gën a wér li may wax naa ko ba tey Mbàkke Bawol gii de man salaire salaire état salaire Sénégal mënu ma faa yendaloo man Abdoulaye te li ñuy wax salaire am la man de fas naa yéene saa bu ma xëyee danaa jël ñaaram def ko ci liggéeyub sëñ Tuubaa bi li nga xam ne mooy salaire maire su ma xëyee fas na maa yéene lu ëpp ñaaram wala ñettam ma def ko ci liggéeyub sëñ Tuubaa bi kon nag ngeen xam ne fii njariñal saa yi teguñu ñu fi bëgg pouvoir teguñu ñu fi ay avantage teguñu ñu fi ndax soxlawuñ ko ndax suñ borom mi ñu dimbale dimbale nañu biñ ma tey yaar tudde nañu génn jëmm muy Serigne Abdou Lahad hmm. yaakaar naa ne ku sa baay wàjjur sa wàjjur tudde Serigne Abdou Lahad képp wàccu naa yow àdduna ak